di ko wéetal di ko kenn suñu góoram gu mag gi ñu ngi ñaan xéewal amu ci yàlla sax nekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne sànq képp yàlla bin sa xalimaam di ziar suñu xalifa Seydina Baye Abdoulahi di ko ñaan yàlla bàyyi ko suñu kanam mu yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp si ginnaawam yàlla naka bul yàlla doole kattanal ko si yéen bu rëy bu diis bi mu xëy yor jox ko am dimbalam te xiir njaboot gi suñu jub neex a boot bañ yoon ndigal fi bàyyi laay bàyyi woon si këram ñu ngi koy ñaana lool di ko ñaanal njaboot Seydina Limaam gépp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu sunu soppe sunu xarit si mbay laa caw di ko ñaan sunu borom subhaanahu wa taala li mu yéene si diina maam yàlla sàmm ak rek ko ak ñu ko jàppale ñëpp mooy ak weer bi ñu dugg si muy weeru koor mu nekk émission boo xam ne nag émission boo xam ne Xadra bi TV ñoo ko ñoo koy ñoo koy taxawee tey jii nekk suñu premier émission ñu bëgg waxtaanee si koor ak la moo aju bëgg noonu say dugg si tey waxtaanu la may koor waxtaan taarix bi fan la jóge waaye waxtaan tamit len si njariñ yi am ak tamit ngëneel yi yi nga xam ne weer bi làmboon bu ko defee nag bu leen toppee si Xadar TV incha allah am ay leeral yu len nàññi kon bu nee koor la may bu nga si langue arabe may fek fek dara lek, asom bu nga si langue arabe may fek dara mais bu dee si istilah nak si sariya mooy lan mooy fekk bànneex mooy bàyyi lekk ak naan bàyyi sëy liggéey bi jant bi fajar gi xare ba jant bi soo mais day ànd ak yéene sa woor weeru koo nag ku ne xam na ne mooy quatrième ponk si na ba dugg si am na juróom ponk yoo xam ne ni faaw mu daje si bi si njëkk mais nga seede ni yàlla am benn bubu nu war du yàlla nga seede ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nga taxaw julli nga woor weeru ko aj màkka ak ginnaaw bi nga joxe asaka comme moom mooy ñeenteelu ponk moo tax ñu ne rukn min arkaan islaam alxamsa allati bana alayha islaam waaye koor fa la jógee ndax koor ku si ne xam na ni taarix bi fa la jóge dañu faradallahu taala ala ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama faradu ala saabiqa ndax weer bi dafa nekk koor dafa nekk weer boo xam ne yàlla moo ko farataa si jullit ñi ndax yàlla may na fukki weer ak benn ngay lekk di naan di lekk di naan mun la weer bi jot na mun nag mun la bul lekk bul naan boo xëy suba woora bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi bànneexu ba jant ba jant bi ba jant bi so ni ko yàlla farataal si xeet bii nag noonu la ko farataal yi ñu jiitu woon ndax dem nga alxuraan suuratu baqara yaay yàlla wax na ni yaa ayyuha ladina amanu kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala xam min qablikum laallakum tattaquuna mu ne yéen ñi xam ne gëm ngeen yàlla gëm bisu penc ne farataal naa si ko woor weeru koor ni ko farataale si xeet yi leen jiitu woon mais lan moo tax yàlla farataal si ñun mooy la'allakum tattaquun pour ngeen mën a am ak ragal yàlla nag mu ngi nekk si bisu altine si weeru saabaan tombeeg ñaareelu at si atu gàddaay bi da yonte mi gàddaay boobu ñaari at seen yàlla farataal moom woor weeru koor weer bi nag lim làmboo si ay ngëneel si ay njariñ yi si nekk dafa bari mën na see tànn ñett yoo xamante ni dafay def si jullit bi mooy ki day woo de am na lu muy def si moom si ruux gi am na liggéey bi muy def si ruux gi am na société bi ñu nekk tamit am na lu muy def si moom mais si wér-gu-yaram tam tamit am na leen mu si def desuñ ne benn bi si nekk ñu tànn si ay points rek bi si njëkk mooy nit ki bu wooree xam am na koogi lu mu si def lu mu si def bokk na si mooy naka na ko yóbbu si mën a muñ. na nit koy woor di nga mën a muñ ndax boo lekk boo xëy suba doo doo doo lekk doo naan doo def dara lu naqar yàlla pour nga muñ loolu muñ rek doy na loolu doy na muñ kon nit dafa dafa woor si loo xam koy daf koy jàngal nit ki da war naa mën a jàng am ñaare ba tamit na ko dimbali mu mu xam moom mooy kan na nit bu wooree du xuloo nit bu wooree du xeex nit bu wooree du saaga kon loolu mu ngi xam moom mooy kan du ñite doomu aadama te tamit na ko yóbbu tamit nit ki mën a yar boppam ba kenn na ko mën a yar ndax boo wooree ñu la bu def naa bu def naa nga bàyyi ko kon loolu yaa ngi yar sa bakkan mais bi ëpp solo bi moom mu ngi koy def mooy day day yóbbu nit ki si ragal yàlla te ragal yàlla googu sax moo tax yàlla farata si ñun weeru koor mooy la'allakum tattaquuna pour ngeen mën am ak ragal yàlla na tamit si njariñ ñeex mu ngi def société bi ndax société bi bu ñëpp xëy suba woor weer woor weeru koor commencé ko da nga gis dëkk bi àdduna bi ni mu changé bokk na si li muy changé na may day day na dem ba xam àdduna bi ñëpp benn nizaam nas am mooy benn organisation na am si ñoom si biir ñu mën a déglu si ay kàddu doo gis xuloo doo gis xeexoo doo gisoo ŋaayoo sax tamit loolu na si yóbbee tam ñoom tamit na mën a booloo doon benn ak tamit bëgg ak mooy waxu bu àddal wa musaawaat wayu wayu kawinu fi mu'minina atifatu wa rahma te na yóbbee ñi ñi tamit ñu mën am ñeewante seen seen diggante mais yërmande tamit na noo wàcc seen diggante seen biir na nit ku ne bu danaa woor yaa ngi sàkk sa sa sa dund ak yiw yiw googu nga am nag moo la moo la yóbbu di nga mën na am ñeewante sa mbokku jullit mi nga xam dafa woor mais di am ñeewante tamit am yërmande tamit sa mbokku jullit te tamit dina fësal nit ñi seen jikko yu baax yi loolu day feeñ ndax ku si xam ne société bi jikko yu ban bari na si loolu tasaaroo na si ñaawteef ñaawteef si tamit bari na si mais boo gisee bu ñu dugg si weeru koor da nga gis yëpp day nëbbu day day nëbbu maanaam mooy kon julli ñi bu ñu dugg si weeru koor seen jukko yu bari na changé mais li gën mooy boo fa dem ba génn weeru koor boobu nag lan laanam ta tàqoo nag yàlla wax loolu mën àndaal ak yow nga xam ne boo dem ba yàgg nag bu dem kon ni yow ragal yàlla dëgg dëgg day nekk si yow bu dee si wér-gi-yaram nag li muy def si yow mooy day setal sa lépp loo xam nekkoon sa yaram ñaare ba sa sa yaram na ko setal ndax ku si ne xam ne yoon sallallahu alayhi wasallam dafa wax daa wax naan ni suumu tasixu mun wóoreen mu leen di ngeen wér daa wax ni képp ko xam ne yaa ngi saxaw woor ah am sa yoon tam wax naan tamit benn xarit ni as ak sawmu nisu sabri mooy mun koo daal mooy xaaju xaaju muñ mooy nit ki dafa tëkkoor woor weeru koor muñ moom na ko yomb loolu ñu ña tamit si ngëneel yi ku xam na xam naa ni weeru koor ngëneel yim làmboo bari na lool lool lool na borom xam-xam yi ni si mën a yaatal ënnas de boo demee si mën xaaju muslim rek daanaka ënnas na bëree bëri bari boo demee ixtiyaar lu mu diin imaam imaam Muhammad ibnu ibnu Ghazali moom tamit wax na si lu bëree bari mais dañ si tànn rek juróom-benn juróom-benn yoo xam ne boo boo boo daanaka yëpp tëngu na si xadis bi si njëkk mooy koor bokk na yi si nekk moom bi si mooy yàlla daf koo jël askan ko boppam joxu ko kenn ku si ne xam na julli ku julli julli juróom am na yool ba si fekk. ko aji màkka yool bi si nekk xam na ko kii ndax azaka yool bi si nekk xam ne mais koor nit mën laa xam yool fa la toll moo tax doo gis abi Hurayra radiyallahu anhu mu ni yonte sallallahu dafa wax ni ni kullu amal ibnu aadama lahu ila siyam fa innahu lii wa ana ajzi bihi mun bépp jëf doomu aadama ñeel na ko moom mun ba mu def weeru koor mun weeru koo moom mun naa koy fay sa bopp sa yàlla lu muy fay nag ku si ne xam ne may commencé benn boobu dafay benn bu fay la nga def mu fay mu yóbbu ko juróom-ñaar ba juróom-ñaar téeméer mais illa addan fi kasira loo xam ne nit mun koo xam léegi nag borom xam-xam doo wax na li tax yàlla jagle xadis bi li tax yàlla jagle ko xeetu yoon salaa salaam ma doon wax ni weeru weeru koor anna siyaam laa yàqoon fii ariyaaw kama yàq fii xëyri minal ibaadaat mu ni weeru weeru koor mu ni sal mun see mun see nekk sal mun tam si dugg mën ta dugg si weeru koor bu dee yenn jaam yàlla nit mën na julli di ngistal maanaam nit mën naa daj si am mbooloo gis mbool mu julli mën da julli nit mën na saraxe gis mbool saraxe mën da saraxe mën bu dee weeru koor nag ngis sa loo mën see am moo tax ñàkk ngis a gis am na moo tax yàlla donc moo ko mën a fay moo ko mën a fay bopp moo tax mu ni asomu lii waa na agis bii ñaareel ba mooy asiyaam min afdal amali indallahi taala mun woo weeru koor bëgg na si jëf gi gën a yàgg yi gën a màgg si yàlla suñu bopp subhanahu wa taala dafa am benn xalis benn saxaaba tudd abi uma amaama abahili dafa ñëw si yoon sallallahu alayhi wasallam ni ko mun nii ba am bi yenn famu ni billaay man diggal ma jëf joo xam ne mu ko jëfee na ma jëriñ digg na sama borom yoon sallallahu alayhi wasallam ni ko alayka bi sawmi mi innahu laa misalahu mu ko maa lay dénk nga woor weer nga maa lay dénk ngay woor amul benn jëf ju mel ni moom amul benn jëf joo xam ne ni mel na nu koor kon loolu dafay dëgg nii yool bi si nekk rëy na loolu boo xam ne yoonte bi daf ko tëkkaloo ko benn jaam yàlla ñetteel mooy lan asiyaam kafaaratun lil xataaya wa zunub mun war weeru koor day effacer ay bàkkaar day effacer ay ñaawteef jëlee nañ si yoon sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni na xuseefa xuseefa jamaa moo moo ko solo moon wa sallam dafa wax ni fitnatu wa maalihi wa waladihi wa jaarihi yukaffiru wa salaat wa sadaqa wal amru bil maarufi mu fitna bi xam ne nit ki mu ngi am si si dëkkandoom fitna bi xam ne nit ki mu ngi am si si këram di ko am si alalam di ko am si njabootam di ko am si ay dëkkandoom ndax nit ku ne fi nga nekk am nga ay fitna joxe yaa ngi koy jànkuwutee sa sa say dëkkandoo yaa ngi koy jànkuwutee say doom wala say ñoñ wala ñeneen ñeneen wala sa alal yonent salaasa ne fitna boobu ngay am nag li tax yàlla mën na ko fegal mën na ko effacer mun dee woor mun yu kaffiru siyaam mun koor bu dee da woor nag yàlla day effacer koor ga ngay ngay woor day effacer day effacer fitna yooyu nekk sa diggante moom bokk na sam li koy effacer tamit mooy mooy woor julli bokk na li ko effacé tamit mooy sa di salaxe waaye tamit bokk na li ko effacé mooy dig dig lu baax ak teral bon sa ku ne xam ne digle lu baax ak teral lu bon dañuy wax nii si kër yoon seen Limaam alayhi salaatu wa salaam faratala si sa boo xool ban Israil li leen yàlla rëbbee woon loolu bokk na si la moo tax mais kaanu laa yatanaahawna an munkari ñoom daaw ñoo digle lu baax daaw ñaan teral lu bon ñoom daal bu yàlla diglee nii ñu def safaan bu yàlla tere ñu def loolu na ko nekkoon mais yoon tamit nag xeetam nag ñoom dañ digal lu baax di tere lu bon ñett ñeenteel bi nag mooy asiyaamu yasan li saaxibi yawmal xiyaama mooy woor weeru koor weeru koor day ramu ëllëg yawmal xiyaama comme ni ñi yoon bi di ramu ak gaa ñu baax ñi alxuraan tamit day ramu ëllëg yawmal xiyaama mar jël na si abdullah ibnu amri radiyallahu anhu anhuma anna la sallallahu alayhi wa sallam xaal asiyaamu wal quraan yasfaani lil abdi yowmal xiyaam mu ne koor ak alquran mu ne koor na ñëw si yàlla ni ko yaa rabbi inni manaatuhu attaam wa saraab bin nahaari fa saafeeni mu ni koor dañëw si yàlla da ñëw taxaw sàmboram ni ko kii de dama ko tere woon lekk tere ko an naan tere ko bànneex digg bëccëg mais bi ma ko tere daana ko daan def kon kii dugal ma ko àjjana ramul ma ko alxuraan daal di ñëw tamit nii yàlla bi inni manatuhu ak ak nooma bi layli fa safini fii mu ni yàlla kii dama ko tere woon nelaw guddi bu ñu daan guddi di nelaw moom daan jug di naafile di ma jàng kon jàngu ma daan jàng nag dama bëgg nga nga dugal nga nga ma ko dugg àjjana bu ko defee yàlla ni fa yasam mu ëllëg yoma xiyam bi di àjjana am na bunt boo xam ne daam ñu fay dugg ñu fay dugg moo gën ma ñeex danaa woor weeru koor ba bunt boobu lañ tuddee ar-Rayyan bu fa duggee nag min ughliqa alayhim ughliqa baab alayhim bu fa dem ba dugg bunt ba yàlla day teg bunt bi bunt boobu mooy bunt ba ñeex rek ñi daan war doog ñoo fay dugg kon loolu nag ngëneel la loo xam ne yàlla jagle na xeet yoon sallallahu alayhi wa sallam juróom benn bi muy yoon sallallahu alayhi wa ni Abu Hurayra moo solo xarit bi nii li saa'imi farixa mu ne ki nga woo am na ñaari mbégte yu nekk si moom benn mbégte bi njëkk mooy la ba ne bay dog ndax ki nga xam ne dafa xëy suba bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp loo xam ne yàlla daf ko araamal ba kenn soo mën na ba tiim ba tiim am ndogo bi ndogu day day bëgg bëgg boobu muy am na am na ngëneel su nekk sa yoon sa sa wax na ne heure boobu yàlla na ko nangoo bi ma isa laqi rabbahu fa farixa fii saw bi saw mi yii mu na ba dem ba daje boromam tamit fekk danaa woor dina am benn mbégte boo xam nekk na si moom kon ñu mën a diggéen nii alors ah, weeru ko ngën yi si nekk bari na dafa tudd juróom-benn yéen rek léegi nit ki dafa mu ngi woon nag ngëneel yooyu nag bu ko jëm xañ boppam maanaam lépp loo xam ne islam san na la ko loo si man lekk si lu baax la gaa profité nga def ko balaa balaa balaa nga am gàllankoor yoo xam ne ëllëg mën mën na laa mën na la arrivé kon foofu la ñemee suñu premier épisode di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala lu jub si yàlla la lu dëng ñu xam ne ñun ñi ñu dox matul yàlla na yàlla fan dégg ak topp ñu ñëwaat si yeneen émission nag wax la mooy sarti koor mais tam la wax tam la may euh, faratee koor ak tam la may sunna yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu